Abdou Ndiaye, vous pouvez présenter vous Voilà, c'est Abdou Ndiaye, membre de la COGER départementale de Koungheul. Ok. Abdou Ndiaye, tey nga ñëwoon fekkee journée bi xam ne COGER ñu ngi ko def COGER départementale en tant que membre lan ngeen ci mën wax ci journée tey bi. voilà donc d' dañuy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bu ñu mayee fekkee ak tal ba ñu mën a organiser journée bi nii tey fii ci département Koungheul particulièrement la commune de Missirah donc nous remercions d' abord ci accueil bi nga xamante ni defal nañu ko tey fii ci Missirah vraiment mu nekk accueil boo xamante ni boo ko gisee yaakaar naa ni tey nekk na loo xam ne nii lu mémorable la parce que c'est une première je pense dans le de Koungheul par rapport à une activité des jeunes donc nag par rapport à ça aussi après la population de Missirah ñu ngi vivement donc l'actuel coordonnateur de la COJER départementale ici présent à savoir Amath Ba donc euh, pour vraiment effort yi nga xam ne def na ko tey pour ñu mën a réussir journée bi nii je pense que c'est dajaloo li nga xamante ni noonu la ko coordonnateur national Moussa Sow bëggee donc noonu la ñu dajaloo vraiment def lépp ci collégialité parce que tey jeunesse républicaine département Koungheul bi dañu war a ànd nekk benn parce que xaajaloo la ñuy bañ parce que yi nga xam ne moo ñuy xaar ak li nga xamante ni coordonnateur national Moussa Sow mi ngi koy xaar ci jeunesse bu département bu Koungheul du lenn lu dul ñu dajaloo dooleel ko moom mi nga xamante ni tey mi ngi def liggéey bu am solo pour compte du président la République ci loolu la ñu nekk moo taxoon tey ñu organiser journée bi peut-être que lii mais li ci kanam yaakaar naa ni moom mooy gën a parce que comme on dit tout début est débit bi nga xam ne moom la ñu def distribution de masques yi sensibiliser population bi ñu xam ne aussi période nawet la ñu nekk luuma yaa ngi am tey comme ni ngeen ko gisee fii ci ministère la nit ñi xam ne ba léegi la pandémie de la Covid 19 et que aujourd'hui je pense ak effort yi nga xamante ni gouvernement bu Sénégal mi ngi koy def il faut que encore jeunesse bi tey jël ce combat à bras le pour aider à ce que ce combat là remporté haut la main donc par le président de la République Macky Sall son gouvernement et l'ensemble du peuple sénégalais. ok gis nañ parmi les membres comme léegi léegi la coordonnateur mu ngi wax am na initiateur ku ko initié di Mamadou Lamine Sall mais am na organisation ku ko organisé réussir ko mooy les de Missira ñu gën si xam Mamadou Ba mais lan ngay wax ci ñoom itam ñi nga xam ne ànd nekk la coordonnateur nangu na leen ko. ñu organiser lu mel nii tey Kojër Koungheul dugg ci histoire parce que ci les 45 départements amul bëriwul département yu gis Kojër def lu mel nii l'initiateur Lamine Sall en tant que membre la nga wax exactement c'est à saluer parce que je pense que toujours bi nga xamante ni moom am na idée bi aussi les gens sont regroupés. Mhm. waxtaan nañu ci je pense que aujourd'hui il faut le féliciter par rapport à cette euh, initiative là mais je l'ai dit on a suggéré à ce que bu affaire bi yem fii nii mhm. tey Missirah la mais demain là vous verrez la COJER départementale dans d'autres communes et pour perpétuer cette action là et je pense que c'est à c'est à saluer maintenant il faut aussi euh, saluer l'engagement donc euh, coordonnateur euh, communal de de donc mu nekk koo xamante ni tey ci moom la ñu tàmbalee mais mu def ci liggéey bu am solo mobiliser les jeunes de Missirah mobiliser aussi les adultes ànd ak ñun ci activité bi donc mu nekk loo xamante lu ñu mën a rafetlu bu baax a baax la ok bu jeex ban message nga am pour jeunesse bi parce que au début euh, nit ñi ñëpp foogoon nañu tey seen journée bi day échec loolu lañu foogoon mais heureusement que réussir ngeen ko ban message nga am pour jeunesse bi xam ne a voilà donc loolu c'est c'est toujours de bonne guerre xam nga li may wax souvent mooy parti au pouvoir moom toujours day am engouement mhm. dina am ay xëccoo dina am ay ay ay xiiroo ay ŋaayoo mais ce qui est important ce qu'il faut retenir ce qui est essentiel c'est qu'aujourd'hui à travers la dynamique inclusive qui est enclenchée par le coordonnateur national monsieur Moussa Sow mhm. donc tey je pense que la jeunesse départementale euh, de Koungheul s'est inscrite en droite ligne par rapport à cette à cette dynamique ak difficulté yu mënti am ñenn ñi mën nañu bokk ci camp bi ñiy bokk ci camp bale il mën mhm. na nekk parce que toujours sensibilité yi mën na ñàkk nekk benn mais quand on parvient à se retrouver autour Je pense que c'est ce qu'il faut saluer. Et aujourd'hui, encore une fois, il faut remercier le coordonnateur national, M. Moussa Sow, pour cette nouvelle dynamique qu'il a impulsée à la Cogère nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de se retrouver malgré nos différences, malgré nos divergences, malgré parfois nos points de vue qui peuvent diverger. Aujourd'hui, nous sommes tous derrière le coordonnateur national, M. Moussa Sow, donc pour inscrire la Cogère dans la République a